Sénégal 4 TV yow yakum. ko ku mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Vous dee gan nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi teg bul fàttee la cloche de notification bi ne ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi et maintenant bon visionnage asalaamaaleykum mbokki internet yu Sénégal 4 TV ñi ngi leen di nuyu di leen ziara di jox kenn ku ci nekk ci yéen sa wàccuwaay amaat mbégte ak contentement di kat ak yéen ci seen beneen vidéo mbokk yi photo bii ngeen jàkkaar loolu di ko xool ndaw si nga xam ni moom moo faree côté càmmoñ ab sud africaine la euh, ay atam toll ci fanweer ak juróom-ñaar di uyoo nag ci euh, turu Gosiyam euh, moom de fi mu toll nii nag dafa daal di rek battre lu ñu duppee record ci wàllu juróom doom ci àdduna warngal kàpp wala sax boog fii ci diwaanu Afrique ndax moom de nikki démb sunu borom dafa daal di dogal rek mu am fukki doom yoo xamante ne nii ñoom la daal di jur ñoom ñoo génne ci biiram bii nga xamante ne nii jamono bi mu nekkee en état la ko daal di photo moom ak ki nga xam ne moom moo di borom këram toll nii nag ki nga xamante ne nii moom moo di Gosiyam daal di nay battre record ndax itam nag fukki euh, doom la am juróom-ñaar yi nekk ay góor ñett nekk ay jigéen mu mel ni niki weer wi nga xamante ne nii moom la ñu génn ci ginnaaw euh, daaf euh, malien bi nga xam ne mi ngi doon uyoo ci turu Alima Cissé moom da dafa daal di rek amoon neuf bébé fu la ca diwaanu Maroc ba nga xamante ne nii àdduna warngal kapp ñi ngi ko doon coow mu mel nag bi yoon beneen sud africaine moom moo daal di rek am dix bébé daal di koy battre ci mu jëmale nag ci wàllu record euh, ci source bi nga xamante ni nii ci la ñu jëlee bi la information ñu ngi ñuy xamal ni euh, moom ndaw sile ak borom këram day bi ñu tollee rek ci wàllu saytu pour xam euh, ñaata doom la daal di ëmb ñu koy duppee échographe dañoo daal di gisoon ni juróom-ñett moom moo nekk ci biir bi waaye nag sunu borom daal di dikk ki mbiram keroog ba nga xamante ne nii ma ngay daal di accoucher ginnaaw bi ñu ko defee opération daal di génne juróom-ñett yëpp dañoo daal di rek gisaat yeneen ñaar yoo xamante ne nii génnaat nañu di gos yaam am na leen juróom-ñaari ay góor lañu ñett yi ñoom ñoo di ay jigéen lu jiitu loolu ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di bile couple jotoon nañoo am déjà ay seex yu njëkk ndax kat seen taaw ay seex lañu ñu woon kon fi mu toll nii mu mel ni seen famille ñu ngi compter fukki doom ak ñaar ñoom ñëpp a ngi ci jàmm ak salaam yàlla na sunu borom kàttanal leen teg ci ñoom loxo ba ñu màgg doon ay mag yu am ñam. mbokk yi li indiloon tey di leen jaajëfalaat bu baax a baax ci topp geeg soo suivre bi ngeen di suivre Sénégal 4 TV cant ak ngërëm ñeel na leen ba ci kanam tuuti ci yeneen vidéo incha allah. Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 TV bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàtte activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi ci nekk et maintenant bon visionnage